رضيت عن المولى تعالى الذي ربى وادي وأغناني وأكرمني ربا رضيت عن المولى Thank you. nday sunu nday yërëm ñu bëgg ñu di ñu taxaw saa soo ñëwee foo mën a ñëw nii lay naan du ñu am ci waaw asalaamaaleykum mbokk yi noo ngi fii ci complexe maam Awa muy soxna maam awaloo Lo muy daara ji nga xam ni Serigne Makhtar Diène moo ko def fii ci Touba di lu neex Seexul Xaddim ndax dëkk bi sëriñ bi mu koy sant jàng ak jàngale la ku dugg ci biir kër gi gis bayit yu am solo yi nga xam ne sëriñ Tuubaa bind na ko ñaan ci dëkk bi addohu kan tajallahu daaru tuqaa wal ilmi wa diini wa daaru litiqaa sëriñ Maxtaar Jenn dafa daara ji nga xam ni tey yaram yëpp daw na ndax fi la yenn ñetti fan yëpp waaye ku fi ñëw tey gis alxuraan ju rafet te kat daara ji yàggut waaye ñu tarifi alxuraan ju leer nañ sëñ Bas Xaadim ba wax ko bokk wax ko te sëriñ Matar ku ko xam xam ne jàng jàngal rek mooy yitteem tey nag bokk yëpp ñëw ci lim fi def lépp nag di bàkk bëgg-bëggub sëriñ Touba ndax teraanga ji mu defal soxna may laat ko cër bii mu neex bokk yëpp doomi sëñ Abdou Lahad ngir yëngu gi mu yëngu ci alquranul karim léegi la fi soxna May moom Cheikh Abdou Lahad jóge ak soxna maam say bintu Cheikh Mamadou Fadal ak soxna maam Fatim moom Cheikh Mamadou Fadal ak njaboot yëpp. kon sa dikk ji neexaat na nañu lool waaye neex na jëmm ji toog muy Cheikh Makhtar Diène cour social dama wax ne léegi ne sa jot bariwul de foo ñëw rek ci ndigal nga jóge Cheikh Mamadul Muntaqa góor yàlla yow lu baax la ñor lu baax ngay wër lu baax rek moo la bàyyi fone Cheikh Makhtar bu wootee lii muy tari alquran tey jii ci daara ju rëy jii muy daara soxna Maam Awa Lo a ah, sa tànk yu tedd yu sell yi soxna si nga bàyyi ko kër mu Mouhamadul Muntaka ñëw fii ci daara ji xam na ne sa bàyyee Cheikh Sohaybu alxuraan nga donn yow alxuraan nga donn alxuraan ngay wër alxuraan ngay jàng la أصدي بصرف العسنات سيدة للمحسنات مريم فوت المقنات عند الذي لم يدرك خبلي سفينة لكل جنة من دارة المنن ياسل منا أتاني المركب في دار منن عند تسن تدخلني دار منن ginnaaw bi nu sant yàlla sunu borom noo ngi julli ci sang yi sang yi Seydouna Muhammad dellu sant ki nga xam ni yaakaar mu mën naa bàyyi ko fu ne waaye ci moom la yem kii wax ni radiyallahu la si xat faata minal xuyéeri wa misaali faata si Ahmadou Bamba Xaadim Rasool di ñaanal baax sëñ Tuubaa Seex Muntaxa Basiir yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér naal yi mu naalal lislaam naalal ko diine ji mu àggale kook sagom te nu ànd ak moom ñu ñëw nag yëkkati kàddu yi sell yu tedd yu bàyyi ko jëmm ji sell du àndal muy soxna Baali taxa bintu Serigne son yi bu Xaadim Rasuul mu ñëw ànd ak doomi boppam ji di Abibulaay Biyaay féete ca Abidjan di fa jëwriñam nu ànd ak mboolem mbokki taalibe yi ñëw fekki si ki nga xam ni moom it day kenn ci moom di jàmbaar lool di taalibe di mu saadix muy Serigne Maxtaar Jenn soxna saa ngi lay nuyu mi ngi lay ndokkeel waaye mi ngi lay sant sant gi nag mooy ñoom bu ñu leen dee tudd di di tudd sëriñ bi donte ñëpp ay taalibe leen waaye nag lu waay defal sëriñ bi rek cant gi ñoom ñoo ci war a jiitu ndax ñoom li ñu ci sëñ bi jaay nañ ko jëndee ko ko taalibe waaye gannaaw ñi ngi leen tudd nag di tudd sëriñ bi lu jëf-jëf ko ci sëñ Touba cant gi ñoom ñoo ci war a jiitu ndax ñoom ñii ñuy tudd di tudd sëñ bi yoreel nañu sëñ bi bor boo xam ni ñoom mun ñu koo fay li fekk bi bisu penc te mënuñu koo fayit ba mu mat waaye saa su nag danañ ci dugal dara ndax ab bor lu mu yàgg-yàggit feek fayoo ko bor ba dafay des moo tax dug dugal gin ciy dugal dara nag mooy ñëw sant la te gërëm la ndax ñoom li leen sëriñ bi defal bor boobu kenn mënu koo fay ndax feeñ ci feeñ bokk ci sëriñ bi doy na sëkk taw feex la maam Cerno ne woon nag sëñ Tuubaa moo njëkk tane ay mbokkam dimbali leen mooy sant bi ku sant bàyyi ko ci sëñ Tuubaa sëriñ bi ber na la ba noppi kon ñoom ñoo ameel sëriñ bi ak cant kon yéen ñi nga xam ni lëggéel ngay liggéey yu mel nii di ko liggéeyalee sëriñ Touba soxna Baal nee na sëñ Maxtaar yoonu murit gépp ak lay sant mboolem ko bokk ci sëriñ Touba sant na la ñëwug soxna May rek dafa doyoon sëkk waaye nag ak cant du doy leneen la ca tegu it di sa koy bopp ak say taxawaay bis bi ni ko seex waxee dëgg la soxna Baali saa bu jógee ci ndigalu sëriñ bi la jóg daaru Minam lan génn dem daaru Tansil sàkku ndigal ci sëriñ bi mu ñëw fii sëriñ baa ngi noonu di dem ca njaareem kon nag te ku ne xam na ni waxtu yi fu masaan jot bu sëriñ bi jiitoo oto yeey tegaloo soxna baa leen ci ginnaaw waaye la taxit mu ñëw fii nag loolu sa taxawaay la ak say yitte sëriñ bi jox ko ci ndigal mu ñëw di la sant di la gërëm ndax lii nga def nii defal ko sëñ Tuubaa fii ci dëkk bi soxna si nee na xajoon na ndakaaru mënoon ko ko faa ay immeuble ba noppi di ko fa luye te rasulilaay mi nga xam ne nag mooy sëriñ sëñ tubaa di yaakaaram moo wax ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu sayyidna Muhammad nee na ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alquran ba noppi di ko jàngale bi nga demee nag làmbatu wut ba am bi nga dellusee joxaat nga lépp sëñ Tuubaa ale boo gis nag dafa am retour ndax ndakaaru gee nuy xëy ak ñeneen Italie ñeneen Amérique ba ñoom Habib ñuy te Abidjan kenn ku ne fa nga ne dëkkoo fa ale nga def ku def ale nag mbokk yaa ngi toog di xaar booy retourné lan nga waree indi waaye soxna Bally nee na jenn bi nga ñibbisee indi nga résultat jëlaat nga lépp delloo ko Sëriñ Tuubaa nee na nag léegi ci oto bi Abdou Salaam a ngi dégg mu ni ma sëñ Maxtaar li lépp li li ma mën a dënk ci moom mooy dafay nit ku yiw ne ma mbooleem jikko ku yiw ak lu ak lu nit ku yu aajowoo mi ngi sëñ Matar Dieng kon nag jooju baat dafa doy sëkk doy na sëkk tawfeex ci mu agsi fii te nee na bi mu la xamee ba tey mi ngi bëgg a yàgg waaye ci def lu baax ak wax lu baax ak yiw ak sell ak ñite loolu rek la ma sa xam ci yow melokaan woow yi nag sëriñam yaakaaram ki nga xam ne amul lu dul moom ba tax buñ ne bàyyi muntaxaa lan ciy teg nee na koo kii di si amul muntaxaa seere na pas-pas boobu ci yow seere na yar googu ci yow seere jikko jooju ci yow leneen la ci aju it nee na it yow sëñ Maxtaar nga bëgg sëñ Muntaxa ba moom soxna Baali mu xamal ko boppam nga yéene sëñ Muntaxa ndam ba tax mu xamal ko boppam nee na ndax li nga def nii ruusut la ci université bi ndax université bi sëriñ bee ko ñaanoon sëñ Muntaxa nag ñëw nekk ci ndax sëñ Tuubaa moom kenn mënu koo dimbali waaye dañ naan sëñ Muntaxa gàttandu na ñaanu sëriñ Tuubaa goog yi ci mat la bul faw sëy ni yow nga ànd gertandu bëggug sëñ Muntaxa ban naalaat lu mel nii defal ko fi sëñ Tuubaa kon nag nee na yow yaa am cant yow yaa yeyoo jërëjëf yow yaa yeyoo ak cant moom soxna Bali nag nga jàpp ko sa jàpp bopp téye ko téewug biir goo xam ne xëy na nit ñi li ñuy xool ci kaw manees na koo bañ a xam nee na waaye mi ngi seeril ñëpp ni sëñ Maxtaar mii daraam ump ko lépp lu mu ne dana ci diisoog moom lépp lu muy dugg da ciy diisoog moom nee na sëñ sëñ Maxtaar def na ma bàjjanam def na ma ndeyam def na ma kilifaam def ma léppam lépp lu mu ne maa ngi koy yëg lu mu sumb wax ceeg man te loolu tey jii mënoo koo xam ci sëñ Maxtaar loolu nag la koy sabab mooy nitu valeur bi mu doon doon nitu sutura sëñ Maxtaar am na yar am nag dal am nag teey te gëm na sëñ Tubaa ma yëmal koog dara nee naa ko man day sa xutba tabaski bii jàll li ma gën a neex ci xutba bi mooy ñëpp bu ñu xutba dañuy wax ci actualité di wax ci nangam waaye yow bi nga jàngee ba ñibbisi doxaan nga sëñ Tuubaa lim moom mooy bii muy tëj xutba bi daa soññaat murid yi ci niñ war a jàppee sëñ Muntaxa soññaat murid yi ci niñ taxaw war a taxawoo sëñ Muntaxa ba noppi leeral ñu ni nag sëñ Muntaxa ak yàggam mi ngi ci ñun ñu ne ko noo mu nekkee ci ñun te sëñ sëñ Matar jenn ne bis bu nu saxee ci bëggam rek ba noppi lépp lum ñu tere bu bu buum ñu te gis sëñ bi dana fi yàgg kon nag loolu it ab soññe la boo xam ni maanaam murit yëpp ko war a dégg kon nag nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm te mi ngi lay ñaanal ndax waxtu wi xat na dikk gi it li ko tënkoon ba mu mën a bañ a amit bari na waaye day am lool nag nee na làmmiñ mën naa wax lu mu gëmul bët xool ko neexul te du ci man dara nopp dégg ko naka te du ci man dara waaye tànk fu mu dem nag boromam moo ko fa yóbbu nee nag agsi gi fii ñëw ba ci daara ji loolu rek moo ko doon doy ci ci bis bii sànq nag dafa yandoo ay gan yoo xam danoo danoo ñëwoon ci sëriñ bi nee waaye li ko gën a loon mooy bu nu sëlmalee tisbaar mbooloo mépp ne fi mu dugg si ñëw bàyyi ko sëñ taxa ànd ak yow bis bi ba mu jeex waaye sant na la bu baax te it gërëm na la mi ngi ñaan nag ci ci barkeb sëriñ bi lépp luñ fi def ak ku fi wattu alquran ak kuñ fi ne baasin mi mara barke ba ca yàllay joxe nee na yàlla na ko sotti ci sa kaw te ak mboolem mbokki taalibe yi def ci taw féexu yaatoo yaatu leneen la ca aju nag mooy ñun it ñi ngi lay sant ndax yow melukaanu jafee nekk ci yow la sëñ Saali waxoon moom nga ànd ak ñun gone yëpp bi nga jiitoo dag noo xaar ba noppi wàccee sa bopp yaanu mag yaanu raw yaanu tane ci sayir waaye ko ci war a dimbali dimbali nga ko da nga ci xool nit sax xam ci moom ay yëf-yëfaan yoo xam ne xëy na sax looy nëbb la waaye da ngay jékki-jékki yëkkati ab biteel ne ko lii de sëriñ sëriñ baara jenn ko joxoon diw diw kii ko mat ma daal di koy kii waaye barkeelu ci te fekk lépp yaa ko defar sa loxo bopp te yooyu day am miraaran te ñi ci mucc bëriwut sa alal bopp ngay jël di def di investir di def ci diine te nag ngay nit koo xam nit doo nitu détail doo tontu wax sa der bii lenn lu ci ne wax nañ ko ci nga bàyyi ko nit ñi ba noppi ñuy dundee sa alal képp koo xam ne jàppoon na ni yow say mbir la koy doxal bàyyeekoo ne feneen fudul la ci sëñ tubaa bu ñëwee ci barab bii xam ni nag la tax sëñ Moussa Kane Cheikh Ibra Jenn ak seen mor ak sëñ moor jenn Bamba taxoon seen néeg yi daawul senn loolu lu wér la néeg néeg néeg yi du senn ab ab seng du la tiim baraag du la tiim sëñ tubaa ku ko ñakkal ba mu ne la jërëjëf loola sidit la buy rogalaat lu ca mujjee judd rek mbiram gën a dox kon nag li ma ta sant yàlla moo ñu defaraat suñuy pas-pas te gën a jubluwaat sëriñ bi te xam ni lépp day jeex ci àdduna ba mu des sa sëriñ bi te yow pas-pas bu wóor moom nga amee sëñ Tuubaa gone yi mujjee judd nag noo la xamul waaye ñoom soxna Baay li ñii ñoom na xam la ca démb xam nañ ni ci ab mbappat mu metti nga jaar ba door a agsi fii ba door a agsi si ci arène nationale bi Habib bi ay mi ak Seydou bin lay xam booba ñu fi daj yëpp xam xamuñu la Seydou mii Seydou mii ta ta ta ta taawam sëñ Matar Dieng ko uf tudd te loola ca ca Abidjan kon loola nag du tey waaye nag waaye tourne boobu yëpp ak liggéey boobu yëpp soxna Baal ne li ko ci gën a neex mooy bi nga amee résultat indi laatal nga ko sëñ Touba kon nag nee na sant nañ la gërëm nañ la ndaw yi fi ne tamit dee fii jàng alxuraan nee na ñoom ñëpp yaal na leen yàlla barkeel yàlla sàmm leen te aar leen kàddu yi daal na xam ne lu ci dëng wala lu ci manqué loola ci man mii ko doon wax la waaye fii mu bàyyi ko foofu mate na fa sëg bisimilah sëñ bi waaye nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm te itam mi mi ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan te wéral la ñu sàkku ci yow nga ñaanal ko ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha ndax soxna Bali mii taxawu na taalibe yëpp jàppale na taalibe yëpp dimbali na taalibe yëpp yuuxu yi ñii di def nag yenn saa yi sax nga dégg ko naan ñii seen téeli téeli ji dafa bari waaye téeli téeli ji jëmalewuñ ko ci ñëpp képp képp ku yor li nga yor dama ne yuuxu yi moom mii toog bëgg ko te gënalu ko bi mu nekkee ci oto bi dafa maa yónni ne ma nañ ma dimbali rek nañu wàññi coow li nanu ànd koog dal yenn saa yi bu ñu duggee ci barab fekk fa ay kilifaam sax danaan ma waxal xale yi ndax samay kilifa dañ fee ne waaye loolu li ko sabab ku yor li nga yor lekk koy rek oto boo mën a gaare nu mu mën a mel kenn du yuuxu nit ñi la leen di tax di yuuxu li tax du du du nu ama sago ci yow mooy li nga leen di fajal la seen i aajo ak di leen dimbali ci seen i kër kon nag noo ngi sàkku ci yow li nga xam ni am nga ko ci njenne ba noppi am ko ci ndam te muy lu wér lu ma xam te téema téema dund koog yow nga ñaan ci barkeb sëñ tubaa barke maam Cheikh Issa barke barke Serigne Mor mii mii mii sa wayjuru baax wi yàlla yàggal ko fi yàlla muccal ko yàlla lafal ko cat te it fekk fekk fanam te mu ànd ko Serigne Mountakha téeméer atu tàmbali tey te ñun ñëpp ñu ne seen ginaaw te kenn bañ a manqué ñu jërëjëf. li nga wax nii sañ sëñ sëñ sëñ bii day ñaanal Cheikh Modou Mountakha ci taxa bu set mu sa discours ca ñaanul sëñ Mountakha ngir mu yàgg fi ba liggéey bi mu yéene liggéey sañ Touba mu defe ko ni mu ko bëggee mm-hmm. soxna si sëñ Maxtaar ku ko bëgg la ci lu wér ndax soxna si dafa neex a bëgg soxna baal yi li sañ Maamun wax rek moo nekk soxna baal yi day nit koo xamante ni wax naa ko léegi sëñ Maamun nee naa ko fu lu baax nekk dina ko xencu dina ko wëri ngir bëggam Serigne Touba ngir li ko yàlla def mu xam ko bu wér waaye jàpp gi ak nit ñi ak doomu aadama yi ni nu mel ci moom ci jëmmam jii la ndax jikkoom jërfet ak mbaax soxna Bali mooy nit ku yiw mooy nit ku baax waaye ak bëggam ak ak jàppam ci lu wér ci lu ñu xam ci sëñ Maxtaar mii ci moom mii xam nañ ko ci lu wér wér sëñ bi mos sa daadeel ci jumaa ji ca ñaanul Cheikh Madou mos sa discours muy muy muy muy muy muy ajjuma wala tabaski wala korte ca ñaanalu ñu ngi lay seeral yi tamit bi Biaye sa doom jii sant nañ ko moom it ndax moom tamit daaray sëñ Maxtaar ji liggéey bi wax dëgg yàlla léeg-léeg mu woote indi fi ay addee ay bagage yoo xam ne Côte d'Ivoire lay jógee mu indi ko ci loxol sëñ Maxtaar loolu Mbàkke ñu ngi la koy seeral nun amuñ sag fay li sëy di wax maamu di ko wax ñëpp di ko wax nun amuñ sag fay nun wax dëgg yàlla amuñ sag fay soxna Bali di sant yàlla bu baax di tàmbali di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha suñ boroom yàggal ko fi lool te ànd ko gu wér ndax li sëñ Maamun wax wala sëñ Lamine wala sëñ dafa wax ci da koo sàkku ci ñun waaye waru koo sàkku sax ku bëgg lu baax te xam ab taxawaayam te bëgg ndamul sëñ Tuubaa te di ko di ko dund da ko war di ko ñaanal moom sa te daa war a ne nga di ko ñaanal bu la sëñ ñore mate na ko ci fànn yëpp mate na ko ci liggéeyal ko mate na ko ci doon am murit saadix mate na ko ci doon koo xam ni mu'min muslim muhsin yëpp daje na ci moom ab jullit la piir taalibe sëñ Tuubaa piir kuy liggéeyal sëñ Tuubaa piir képp koo xam ni yàlla dimbaliwu la wala amoo ndimbal ba jamononteeg moom ba baaxam geeg wayefam gi ak ni mel ni ko suñ borom binde ci moom ba musoo ci la nga xam ne loolu la yor ci suñ tubaa lu bari raw na la kon Seex Muhammadul Muntaxa ñu di ko ñaanal ñun moom daanaka la sëriñ Fall waxoon ni bëgg sëñ tubaa farata la la jooy ngir sëñ Touba farata la waaye ñaanal sëriñ Mouhamadul Muntaxa farata la ci jullit rawatina ci taalibe rawatina ci murit mu bëgg sëñ Touba kon ñu ngi koy ubbee foofu yaa ngi ñuy massaw sax ci sa njaboot gi nii ci sunu njaboot gi waaye ñun yow lañ ci massaw waaye lépp lu baax la ndax ni ko sëriñ Mamoun waxee ñoom ñu bari dañoo naroon a dem waaye bu ñu yaa ngi ñëw ñoom ñu daal dañuy toog te loolu lépp lu baax la ndax am na ci ñoo xam ne ci ñoom yàgg na ma ak ñoom lool xamante nañ bu yàgg ma leen di wax sax léeg-léeg damay wax Seydou ki ñuy wax Cheikh Tall ak ca yëmbal ju njëkk ja caare ju njëkk ja man daanaka yëngu yëngu yëngu gu xumb yëpp ñoom ñi ca daanaka ca ca Tali Jàllo booba ca année quatre-vingt-seize 97 booba daanaka moom mi buñ buñ buñ buñ demee wër ba ba ba ba xamatuñ fu ñu jëm néeguma amoon yëmbal tëli jàllo fa la ñuy ñëw mos la ñuy mos ma dàq leen ñu dem kon xam naa leen bu baax a baax a baax a baax moo tax tey bi mu ñëwee rek daanaka dama leen ni ñun ñëpp moom xamante nañ nan <laughs> nañ dal ba soxna si ñëw rek moo tax mayoon nañ ñu lépp ñoom xamante nañ ñun ñun <laughs> ñoom ñoom ñoo bokk écrit xamante nañ bu baax loolu nag Mbàkke sa woyeef ak sa baax am ñoo xam ne boo nekkee ci kaw wàcc ba tolloog ñoom mm-hmm. di leen nit ñu mën a yëngu lool te wax naa loo ko barki démb ni la image moom lu am solo la waaye gisuñu fenn ci li ñuy topp mm-hmm. wala fenn foo xam ni gis nañ fa ci ci sa toogaay ba yëg fa luñ war a woola wax la ko buñ ko yëgoo it wax la ko ndax ndax ndax ndax ndax ci yow lañ bokk ñu ngi lay sant bu baax Mbàkke yow mën nañ la fee teewal li sëñ Maamun wax loolu looluy dëgg ndax yi nit ñi li liñ liñ jul gis te di ko seede li nëbbu tey dëgg daa ëpp te duñ ko yëg li nga xam daa nëbbu waaye day dëgg mooy daa daa ëpp li ñu mën a jokkante te muy dëgg daa ëpp te loola mooy sunu diggante muy lu yàgg nga nga nga nga nga nga boole ñu sa bopp ndax yow yaa baax ñun moom waruñu ñu laa jige fen waaye yaa baax ba boole ñu sa bopp te mu yàgg te booba du tur du sant du am am du dara lu yàgg foo mu a nekk ci ndakaaru Touba foo mu sa ne Porokhane ñu ñëw ñu fekk la fa nga jox ñu cër boo xam ni booba dara xewul waaw ndakaaru waxtu wu ne ñëw nañ ci yow bi yàlla dogalit sëriñ Mouhamadul Mountakha ne fi di sëñ Touba bëgg dara ci sëriñ bi mu jafe ñu ndax yow waaw ndax sag buñ fa amit bu dee fukk juróom-ñeent yëpp yaa ñu ko doxal waaw loolu mën nañ koo seede la ci la ci jiitu mooy bi ñuy ubbi liggéey sëñ Touba bi bañ njëkkee di bëgga liggéey jumaa ji dañ laaw ak ak ak ak ak koor nga xam ne moom li ngay def mooy da ngay ñëw te boo ngeen àndeek mun taxaa boo fa jógee dogg sa ci ñun keroog sëñ bi ci biirum néegu boppam la ñu dugal te sa jëmm a loola rëy ñun lool daanaka yeeg photo yëpp a ngi ci sëñ ba maanaam wax ñu wax ju rëy liggéey boobu kat dina ci ñaan mooy jumaa ja bañ ñëwaatee war a liggéey lii ba la ko jiit sax bañ dañ war a ubbi ajjuma ji jaaruñu ko ci fenn ci yow lañ ko jaar maanaam teewoo fa yaa defar bis ndax la tax ñu bëgg yow yaa yaa ca dox wax ko ak sëriñ bi sëriñ bi ñu jottante ci ñu jottante ci ci téléphone wax dëgg yàlla ak yitte jëm ca def ba yabal sëriñ Moustapha moom sëñ Abdul Xaadar ëpp na ci ñun ëpp na ci ñun lool te yow waaw nga xam ni ba ba bañ ma ba moo koy wax man li ma la wax kàddu ya mu ni ma sëñ Moustapha ma ne ko sëñ Moustapha dama koy wax ba léegi ma ne ko yow de sama waay nga woon lool ku ma bëggoon nga waaye sëñ bi ñu gën a boole sax dama laa bëggoon sëñ bi gën ñoo boole waat ba loolu dañ koy dox ci moom ba léegi muy sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Khadar te loolu sa sa jëmma nga yëkkati tiraanga yu baree baree bari yónnee ci kon yooyu moo jiitu waaw yu baree bari bari bari nga jiitu ci soxna si Mbàkke ñun damay wax ni lépp lu nuy lu nuy wax dañ koy bëgg a yëg ba noppi doog ko wax waaye yow dañu laa am am lu nu xam ci yow loo xam ne buñ sañoon na bind wala ñu war a wax buñ ko waxee danañ ko xam waxuma ni jamono ji di li jàll li ma xam ndax xam nga ni am na luñ luñ ci xam waaye ku ku ku taxaw Tuubaa nga ku taxaw Sëñ Tuubaa nga ku taxaw Sëñ Muntaxaa ndax am na wax yoo xam ne du jàll ci ñu bari ñu bari duñ ko war a yëg waaye sëb bu daan na war a tàkk te la ko fay ci yow rek lay jóge te loolu ñëpp ñëpp nga ko defal ndax Sénégal nga ko defal te am na luñ ci xam am na luñ ci mën a seede am na luñ ci xam ndax dund nañ ko ak yow dund nañ ko ak sëriñ bi dund nañu fekk ñoo xam ni la tax bu ñu amee jàmm wala ñu am ba génn num tëri loola sa jëmm ji dox nga ci lu baree bari doxal nga ko Sénégal doxal nga ko yoon wi loo xam ne kenn mënu ko wax kenn mënu koo nett lu nu xam lu nu mën a seede lu nu fekke lu nu yëg lu nu gis ndax loolu daa gën a wér fekke dégg gis loolu dox nañ ko ci sa ji kon nag Mbàkke yow wax dëgg yàlla li ma la wax barki démb ci téléphone rek lool laa lay wax te loolu ñun falañ ne mooy di la sagoo waaw sagoo biir waaw ñoom Seydou dañoo amul làmmiñ rek di wax ci ci ca kaw. ñoom Seydou dañoo am dañoo am làmmiñ rek di wax waaye am na ñoo am na ñoo xam seen wax seen seen wax ci seen biirub xol ci waxtu wu te loolay dëgg man boog ah loolay dëgg ci man ndax man moom li nga li nga ma ji maanaam nekkul loo xam ni lu ma war a am ci yow la tolloo wu ñuy at tolloo wuñ ñu ko sëñ sëñ bi waxee ca sëñ Tuubaa ca waajur ya tolloo wuñ ci jëf yu ma xam ak jikko yu ma xam yu biir yooyu jëfee loolu nag buñ ko buñ ko seedee lu nu dund ak yow la mu yàgg lool mbàkki kon nag sa ñëw gii nga ñëw lañ ca gën a yéeme lañ ci gën a nangoo lañ ci gën a sant yàlla mooy jóge gi nga jóge sëñ Muntaxa waa ndax man sëñ Muntaxa moom dama koy dund moom ah, moom moom dama koy ah. dund boo jóge woon fii ba ñëw sa kër ga booy dugg dama ne photo yi nga xam ne moom la ñuy ànd wala foto ci bunt sama bunt néeg bala ngaa dugg ci biir dama koy faral di wax damay wax ni man amul benn photo ci sama kër gu ma am ku rax sëñ Tuubaa amul du ndey du baay du soxna du keneen amul sëñ Tuubaa kese moom laay def sama néeg moom lay fanaanoo kër gu ma am sëñ Tuubaa rek ci ne sëñ Muntaxa rek laa jël photoom def ko ci buntu ba ndaxaan kuy dugg ñëw ci ndax dama xam lu ma yëg sama biir xol ni saa bu ma gisee am cofeel gu ma yokk sama dégg sëñ Tuubaa su ma gisee rek am lu ma yokk sama dégg sëñ Tuubaa waaw loolu sëñ Muntaxa moom foofa lañ ci nekk ci moom kon nag Mbàkke ñu ngi lay ñaanal bu baax ndax waa maama yan fawoon naas fa yam ko sil ardi soo amee lay njariñ ci nit ñi yaa ñaanal sa bopp ndax ku amul njariñ munoo yàgg ci àddina ku amul njariñ munoo yàgg ci àddina waaye suñ borom nee na ku am njariñ danga sax ci àddina te macha allah say tiraanga yi nit ñi gis yu biir yi nit ñi gis yi yi ci yi nga xam ne moo biiru moo ëpp waaw xam nañ nit ñoo xam ne ci dëkk bi buñ demee ba mën a xool sa jëm ma tax xam nañ nit ñoo xam ne buñ demee ba am maanaam tànk ñu mën a doxee ndax ay jàngoro ñu war a mën a am da nga leen jël daan nga leen toppatoo daan nga leen lijjanti bañ génn ñu dem te ñëw te kenn du ko yëg loolu bu ma wax ay centaine centaine centaine yoo xam ni ñii sax duñ ko yëg nga def ko ca suuf tamuy lu baax kon nag amul kenn koo xam ni ku la gërëm ku la wut a jàppale ku la wut a ñaanale man de wallaahi rasim li may wax loolu lay def maanaam ñeewante sax laa lay dama dama lay ñeewante lool waaw muy yan bi ak diis gi ak li ne ci kaw te maanaam doo doo doo doo ko wane mukk ba nit gis la nga ni oh wala nit gis la nga xam ni yow mii kat am na la metti te fu na jóg fi kon nag la ma wax it loola rek ay wér ñun ñu ñun ñu aar leen kiir leen looloo ñu war képp ku yëkkatul ab sofaan jëmale ci yéen daa war a ñëw ci ñun ba pare doo ko jàll munta jàll ci ñun la war a yem ñun dañoo war a nekk rek seen biir kon yow mbakkee ñu ngi lay ñaanal ci barkeb Serigne Chouaïbou ñu ngi lay ñaanal ci barkeb alxuraanul karim di la ñaanal ci barkeb Serigne Touba di la ci liggéey bi ñuy liggéeyal Serigne Touba te jàpp na ñoo ngi jéem a liggéeyal Serigne Touba nga yàgg fi te wér Mbàkke lépp lu nit di xaar ak lu mu mën di doon yàlla bu mu ko gis ci yow mukk lu dul maanaam sa maam ja sa waajur wa lim fi bàyyi woon nga gën caa suuxat du gën a def danaa lay topp fu ne te ku nangu kilifa nga waaw ku nangu kilifa nga ndax topp naa la ba topp la France di yër yëpp ndax téléphone yeeg ya nga cay wax yëpp waaye da nga da ngay gis ni soxna si daraja bu ko amee sax su gisee kilifaam jox ko lépp waaw te loolu maanaam nit ku nekkul koo xam ni nekkoo nit koo xam ni sa am nga xalbun salim yombul ci yow waaw ndax col gi loolu la ñuy gis wala naa nit ki foog la nekk sa biir gën wér gën a sell te loolu lañ xam ci yow mu desit fii nga nu féete mu yëpp war war laa ñaanal waxuma de boo fa nekkul waaye a ah, am nga fa solo mooy ci sëñ Muntaxa ndax ci jokkli ci jotal waaw ndax ni ma ko waxee rek man lii may liggéey moom fu ma ci jaar fu ma ci soxlaa fu ma ci bëggee yow laay jaar te daf may yomb ba ma demee ba sëñ taxaa dama koy wax delub téléphone ah sëñ Maxtaar wax ak man ni ma liggéey baa nga gu doxalal sa na na sa maam ya nekkoon rek nekk ca ci yow mi la jaare sëñ Muntaxa bu jëlee ni ko sëñ Maamun wax nga xam ne benn wax na ma ko benn yoon su ma gisee dafa may ni ma la sëñ Maxtaar kat yow day daa mel ni fagguteefu sëñ bi ca fa ngay liggéeyee nga waaw kon foo boo demee bu dee lañ fa war a teg dig imaam lañ fa war a teg te kuy jàngale lañ fay war a liggéey yëpp nee nga sëñ liggéeyu sëñ Tuubaa nga booy liggéey jiital naa la ci doxal ko loolu lépp mbakki yow kon nag ñu ngi lay ñaanal di la sant di la gërëm di ñaan ci barkeb sëñ tubaa mi nga xam ne si nii lu ci ab murit ñaan te muy dëgg maam ko yàlla may la ak wér may la ak gudd fan wax dëgg yàlla eh, say du ñoom ñii rek dañoo baax ni ma ko waxee waxati ko waaye waxtu wu ne li ñuy wax lépp ñun la gën a war waaw waxtu wu ne li ñuy wax ñun la war a gën a war waaw wax dëgg yàlla ndax jinga nga te jigi du tay sëñ Maamun jigi du tay ndax noor fowaar waxtu wu ne fekk naa ko fa kër gee ngeen jàpp ni sax duma fa dem waaye maa leen gën a miin kër ga maa leen gën a miin Saliya waaw la fa la ma fa xam gëm naa ni de ah xaw naa fa xam sëñ Maamun xam na xam naa biir kër ga waaw yaakaar naa xam naa ko waaw kay léegi léeg-léeg nga dugg yëngal ba pare ma ñëw te doo ko yëg kon nag ku la ku la boole ci boppam moo lay defal loolu waaw ku la boole ci boppam waaw mooy bàyyi bu ñëpp demee mu woo la nga a ñëw mu jox la cër waaw loolu nag ci la nekk kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm waaw nii la rek gën a li suñ maamun wax rek waaw gën a gën a gën a gën a ndax am riir moom baax na waaye na lépp nekk lu daggu ci seen biir rek waaw lépp na daggu ci biir bu ngeen amee loo xam ne wàcce na dara jaam ba jox leen ko te manoon bu ngeen yegsee du ngeen yegsi ngeen ko bëggee fekk kon tam jox na leen lépp yërëm leen ñewante leen te lu mu am jox leen ci da ngay xaar sa ah, da nag li ñuy wax sa tur sa tubéy ngir mu àggu wér ngir mu amuk yàgg ba ku a jëm ci kawam balaa yegg ci moom yegg si yegg ci moom waaw kay te moom it kenn xam nañ ko bu baax waaw wallaahi wallaahi wallaay Mbàkke ndax moom it joxe ko joxee basang mu fa indi woon dongo yi daanaka ca la ñuy jàng ba léegi mu jële Côte d'Ivoire indi ko wu lool wallaay wallaay wallaay wallaay ñu xam ko ca Côte d'Ivoire yu yàgg ba léegi mu nekkal fa sëñ tubaa rek waaw kay te moom it baax moom nit ñi moom ni ma ko waxee rek maanaam doo fexee ba am li nga ab cër ci sëñ Tuubaa yaa koy may sa bopp te moom it am na ko amul benn bunt waaw foo foo foo yaakaar ni jëfam du fa yàgg rek ma ngi fay dem waaw ñëw na fa jul ñëw na fa julli si fa jóge sax Côte d'Ivoire ñëw ba julli si fa yéen doog ñun macha allah Côte d'Ivoire bu ma fa demee lu gàtt gàtt ba ma fay mujj sama yoon bi amul kenn ku ma yëg yaakaar naa moom moo fa yëg waaye teraanga jënd yu bëree bëri yónnee ma yónnee ma ko ca hôtel ba kon ñu ngi la koy seedeel bu baax a baax waaw di sant bu baax di sant sëñ maamu nit ci jokkale ji nii la rek lu baax moom ku ne yaa koy wutal sa bopp waaw lu baax moom fam ne waaw ku yàlla dogal nga yëg ko da fay nekk te boo fay wut nii la rek wut ko kon ñu ngi la ciy sant bu baax ndax jokkale la ak ñëpp ak sarak yeeg ñi nga ànd yëpp soxna si daal bëgg mun ta weesu bëgg waaye bëgg nañ ak ak sant mënut a weesu cant waaye cant nañ waa yow moom tey suba ginnaaw suba melokaan wii ñu mel ci yow dara du ci soppeeku dara dara am nga nu bu yàgg te fii may nooyi moom doo ma doo ma ñàkk ndax ci sa njaboot laa bokk waaw ndax ji nga loo xam ni jomb na ma waaw ji nga ma mbàkke loo xam ni jomb na ma ji nga def nga ma loo xam ndax sa sa sa sa sa sa téléphone yi yii nii moo ci gën a moo ci moo ci moo ci mujj waaye yi ci nekk ju biir a biir yëg na te sëriñ bi wallaahi yàlla rek ma tax di seede waaye wax moom téléphone sax danoo warul moom daa war a wax rek ñu dégg mu jaarale ci wax ñu jëfe waaye yàlla dimbali nañu ba waxtu wu ne ñu am ak jokkoog moom ba yàlla xam na ni suñu ko nuyoo mu jaar ci suñu sant luñ fa bëgg am am ko fa sa jëmm a tax loolu sa yaata la tax loolu nag da xam ne alali Sëriñ Tuubaa waaw nga fexe ba ñu kuy liggéeyal sëñ Tuubaa nga yegg ci moom loolu mooy sa taxawaay kon ñu lay sant di la ñaanal di la sant di la ñaanal di la sant di la ñaanal waxtu wu ne ñu ngi ci ñun amuñu benn benn benn benn bu ñu amee daal lu ñuy regretté mooy lu war a taxawu goo xam ni war naa fis lool ñu taxaw la ci sa jëm te nit ñi maanaam jàpp ni amul te fekk nag la ca biir ci sunu xol ak nañ koy doxee di ko seedeel sañ Tuubaa waaye waxtu wu ne sëñ maam yëgal ni soxna si moom am nañ ci moom cofeel bu bërki démb rek waxtaan naa ci ak yow waxtaan wu gudd waaw wax waxtaan woo xam ni gudd na lool ñoom sëñ Lamine te saa su la ñuy la ñuy wax lu ñu ci bari dama dama koo ñeewante waaw ñeewante mooy coono bi waaw mooy coono bi togg yi waa lu ne lu ne bëgg lu baax kon nag loolu yëpp ba ba daaw bi ñuy dem jël naa xale yi fii ay wutaleen ay bis leen yóbbu ca maam jaara danga nga ne ma ba bañ demee dañ dañoo dem ci suba ñëw ba ma la nga ne mooy ëppoon naa wax da maa wax ma ubbil la kër ga nga yóbbu leen fa waaw fa fay sa kër te daa gaawoon yooyu yëpp ay macha allah kenn mënu ko wax kon nag ñu ngi lay ñaanal ñun daal wax dëgg yàlla Mbàkke ñu ngi lay ñaanal te lii mooy dëgg su ñun may ngañ sa bopp loo xam ni su ma gisoon dara dara dara dara loo xam ne lu ma war a waxtaanee yow doom laa maanaam taalibe laa soppe laa lépp la danaa ñëw waxtaan ci yow waaye gisuma dara dara dara du daal li li nga li ngay liggéeyal Sëñ Tuubaa daal dara loo xam ne lu ma ci mën a xebeb lu dul wan ni coono ba nga cee jànkonte Sëñ Tuubaa yëg waaw ah, sëñ Tuubaa yëg ko ndax moo tax taalibe bi moo tax lii rek moo tax taalibe yi la moo tax taalibe yëg la waaw ku yaatal nga ku baax nga kuy lijjanti lu lëj nga te kenn du ko yëg kuy dox ci suuf ndax <laughs> am na loo kenn mënu ko wax waaye xam nga ne suñ ko mënoon a wax wala nit ñi mën koo bind ah wax dëgg yàlla am na day ñoo xam ne jàmm buñ ko amee war nañ laa sant jàmm buñ ko amee war nañ laa sant ndax xam naa ci lu baax te ba te jataay bi taxul ndax danga koo jëf ma gis ñi ma ko waxee rek nga dox ko ma gis nga wax ko ma dégg kon nag loolu nag ñu ngi koy seedeel sëñ Tuubaa ni taxawee googu ngay taxaw di ko taxawee murid yi di ko taxawee sëriñ bi ñun nga ko defal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm munta weesu cant bég nañ lool daal waaw bég nañ lool bég nañ waaw yow moom Mbàkke bég nañ yow moom xam nga ni bég nañ waaw Mbàkke nañ Mbàkke bég nañ ñun suñu melokaan ci yow bu ñu la gisee bu noonu la mel waaw maanaam suñu dugg ci néeg génn ci néeg ci am waaw te lii may wax boo ma yóbboon ba jumaa ja mën naa ko wax fu ne ndax ah, ah, ndax dama naan ñii ku leen yërëm ku leen yërëm rek fonk leen yàllaay doog ñu amaat ab cofeel ci yow mooy ab jirim wax naa ko fii léegi ñun nee naa bokk naa ci ñu njëkk a ñàkk waajur man sama waajur juróomi at señ moor Jenn juróomi at ñeenti at xaw ma kon xamoo ko te aw ma nijaay ju ma taxaw waajur wu jigéen laam ak wu góor kon jirim boobu ku ko yëg rek wala nga am cofeel ci moom la la jógee ci moom day doon dëgg ndax da koo ñàkk yow ma taxaw taxawaayam boobu da koy yëg ku teel a ñàkk waajur loo ko defal da ko yëg waaw nga def ko nag ci jamono joo xam ne ba koy def dara taxul du tur du sant du àdduna ndax li xew léegi daa bari waaye moom fa ba ñu dugal fa ñu doon dugal di wax ak ñun booba dara xewul waaw te yërëm yërmande ko nga amoon ci ñun moo waral sa jataay bi lii de mbàkki réy na lool waaw ñu réy na lool jóge Sëriñ ñëw nii ak réy ci ñun lu la ndax ñun moom liggéeyuluñ ku dul moom fii ma toog nii de boo bu ñu àndoon mu ni ma tëjal daara ja tëj kër ga ni ma acco bisimilah maanaam dootoo dégg ma yëngu ci dara waaw lépp lu ma yëngu moom ndigalam jëfam noppam moom laa koy seedeel waaye lépp lu ci bëggul aw ma ko ci dama leen koy wax sax bëgg dong yeeg ñi ñi toog fee yëpp bu dama laa li ñu fi copier na doon ci université ñu kenn royu ñu koy jàngale ca Égypte royu ñu koy jàngale ca Caire royu ñu koy jàngale ca Arabie Saoudite ñun am nañ lépp mooy Sëñ Tuubaa te doy moom lañ ci bëgg a jàngale loolu lañ ci bëgg a jàng loolu la ñu bëgg liggéeyal Sëñ Tuubaa te melokaan yooyu nag Sëñ Muntaxaa yor na ko moo tax ñu di ko wane waaw ñu ngi lay sant di la gërëm waa la Moussa waxoon rek lañ lay wax ba ko yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ñenn di wax ak moom muy waxanteeg moom. Mm-hmm. wax je gudd wax je gudd boroom xam-xam yi nga xam ne xam nañ te xam mm-hmm. dañ doon dal ci kawam ñu ko koy wax ak yàlla mm-hmm. suñu borom tam mi lim lay laaj mu xam ko. lu nekk sa loxo bi nga ne fa naan ko aw yat la lii laa ciy def dama ciy sàmm nangam nangam ñu ma teg ko ci wolof loolu wax ji daa gudd. ko lu tax nga doon wax ak moom wax ji daa gudd waroo wax ak moom ndax day nuru leen mbàkk tey mooy jataay bi ni mu guddee mhm. Moussa da koo ton ne ko wax ak koo sopp doo bëgg wax ji jeex waaw suñ borom mi dama waaw waaw waaw suñ dama laa sopp ba bëgguma wax ji jeex mhm. a loolu nag moo ma dal ci yow mhm. a bu ma sañoon damay wax ba suba rek wax ji du jeex